temps dañuy gis ni que dañuy pointer du doigt état wu Sénégal mais parents yi euh, itam est-ce que amuñu ci euh, euh, part de responsabilité sachant que xëy na bu ñu waxoon ak seeni ay doom gëmloo leen que mën nañu fi toog tekki fi même bu fekkee tuuti la ñuy am mën nañ ci dudd mën nañ ko am alors on on me mën nañu delluwaat fële ca front ba ñu xool am ñoom tamit lan la ñuy wax dellu siwaat ci plateau bi. ak euh, maam euh, mm, nu mu tuddati Salma Ibrahima Fall ak euh, Maymuna Buso ñoom ñoo lañ ko bokkal ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen li ñu tax a jóg nag mouvement boobu bëri na ñuy wax sax mouvement journaliste la mais du mouvement boo xam ne journaliste yi rek la parce que journaliste yi rek moomuñu mouvement boobu parce que man mii maa ngi ci biir te du ma journaliste ak ñoom Babacar boobu bëri na nag ay journaliste yu ci nekk mais li tax ñu jóg rek mooy ñun ay nit lañ ñoo xam ne ñu ci ëpp ay ñun xam nañ ñu ci micro yi ñuy wax mais réew bi dafa toll koo xam ne euh, kenn ku nekk da ngay fekkee da ngaa nekkoon ci ay bureau wala sa néeg wala sa place réew mi dafa toll foo xam ne ku nekk da ngay jóg fa nga nekkoon nga ñëw taxaw ci pénc mi ñu ànd xeex li ñuy xeex pour Sénégal mën a continuer di nekk fa mu nekkoon loolu nag moo tax FDD sosu donc ñun ñu ci nekk ñëpp loolu rek moo ñu yëkkati ñu ciy woo sénégalais yëpp samedi am nañ manifestation terrain Grand Yoff euh, à quinze heures mooy nekk commencement bi ñu ngi ciy invité euh, leader politique yëpp candidat yi ak euh, njiitu mouvement yi fi nekk yëpp ak journaliste yëpp parce que tey jii sax dañoo amoon conférence de presse mais comme dañu yëg ne ñii dañuy def te yaakaar naa ne boole doole yi ci lañu war a toll mais kenn ku nekk warul beru fële di def sa yëfu bopp nii nga xamee ne candidat yi dañu boole seen bopp euh, noonu la mouvement yëpp war a boole seen bopp ba ku woote ñëpp ñëw ànd ak yow pour li ngay def mën a réussir parce que li ñu soxla du ndamu benn nit du ndamu ñaari nit mais ndamul <coughs> réew mi lépp la euh, li nga xam ne dinaa ko si waxaat rek euh, mooy wax ak sénégalais yi parce que tey mën nañ woote manifestation ku mu neex nga toog mën nañ woote ville morte nga génn dem ne bokkuma ci waaye démb ak barki démb rek ku def Guinée ville morte am na fa par force parce que nit ñi sécurité gu buñ génnee sax dem liggéey yi amatuñu ko boo demee di liggéey sax li ngay liggéey mënatut a tegu ci dara parce que amuñu li ñuy wax état comme nag ñun leader yi ñu yàlla jox ay visionnaire lañ xam nañ ne kat fii Macky Sall jëm ak réew bi nit dina fi bëgg génn këram lu ñemee génn nit dina fi bëgg a liggéey du mën a liggéey nit dina jënd conteneur indi ko fii ci port bi dootu ko sa dara dara du ko ci fekk. laataa loolu di am na dañuy boole suñ doole ñun sénégalais yi ànd xeex lii nga xam ne moom la Macky Sall di woote ci réew mi pour mu jóge fi. li nga xam ne moom laay dolliwaat loolu laay wax sénégalais yi. xeet bi nag yàlla def na ñun ñëpp ay sénégalais lañ mais dafa am ñoo xam ne li ñu wax atarabul awla ay leader yoo xam ne ñoom ñooy candidat yi muy 19 personnes kenn ci ñoom mooy nekk président Sénégal incha allah ñooñu nag comme nangu nañoo boolee suñu bopp seen bopp ñun militants yi nga xam ne dañu bokk ci parti yi ak ñi nga xam ne ay sympathisants lañ ak ku mën a doon il faut ñu booloo ñun suñ bopp comme ni leader yi boolewoo parce que tey benn leader rek bu génnoon rek day may doole Macky Sall bu ñu dajee fenn di woote manifestation wala di woote meeting ñu naan kii moo wax lii kii moo wax lii sama leader ñii di yuuxu kii ñii di yuuxu kee kon leader yi ñi ngi defar mais militants yi ñi ngi yàq il faut ñu bàyyi xel loolu ku rusuta ñëw ànd ak sa leader waroo rus jox ko gëdd gëdd di nga jox sa leader donc loolu laay wax leader yi ëpp ma leen xam gënuma leen a xam réew mi mais dinaa leen baaxe dara mooy ngeen gën a boole seen bopp. Macky Sall kum ci def visite biir kër lankal kum ci woo public lankal. parce que li mu bëgg mooy dina def le tout pour pour tàqali leen loolu nag yéen a koy bañal seen bopp pour gën ñëw may doole li ñuy dox seen ginnaaw. parce que man euh, euh, dialogue bii mu doon woote barki démb defe naa ne lu nekk lu gën a nekk yàpp senegal amul. mooy nga am sa ñaari soxna problème am ci kër gi nga ne pour ñu régler problème bi dañuy dem jëli ex yëpp ñu ñëw bokk régler problème loolu la leen bëggoon a def ngeen xam ko lan moom nag jaral na ko nag bëgg na réunion ba waral ko mu bàyyi soxnaa bi dem di réunion ex yi man nag boo réunion ex yi ba noppi boo ñëwee noo koy doxale ci biir kër gi laa xamul li ci des mooy lii muy def lépp bu leen mës a dugal seen bopp ci ne Macky Sall day dem la biir Afrique mi ngi koy tamit mi ngi koy wax ba muy wër réew di naan damay def cinq ans du ma def sept ans est ce que ba mu jotee def na lan la Macky Sall ma sa dig askanu Sénégal dalee ba jot mu respecté ko le 2 avril Macky Sall dafa bëgg a essayer xool ba xam la trois bu xëyee nan la dëkk bi mel su nooyee day continuer toog ci réew bi jaay doole nii xam nga ne pardon benn baat bu demee naan daaka ji mooy tax mënumaa jàpp man euh, élection yi waa bërki démb ban président moo fekk plein daaka mu ne dagg leen daaka ji parce que corona dafay ñëw du Macky Sall kon bu demee bay taafantaloo daaka tey xam ngeen ne dafa am lu nekk ci boppam te waxu ko Macky Sall foo mën a fi gàmmu Tiwaawoon foo mu fi daaka foo mu fi màggal yi foo mu fi ngénte yi